nooy moytoo sa noon Nabou Diagne nooy moytoo sa noon Adi Fuña nooy moytoo sa noon Kumbis Dia nooy moytoo sa noon man ak yow dañuy génn Koña 2 laa wax dum dëkk parcelle fen gu noonu bàyyi leen naa alors Kenza borom Italie ah? gis nga kii xool eh bàyyi eh. téléphone bi gis nga kii yow yombee noonu li dala cee génne. waaye mbër maa ngi jégalu. non amul jégalu. namaste mbër.